def na ay nomination ci euh, police bi donc euh, commissaire de police euh, divisionnaire de classe kii Saliou maa ngi lay yónnee lii nga nga nga dugal ko léegi xam nga ñi moom ñun bu ñu intéressé mooy yi yi waa jëppal yi waaw Dakar xaar ma yónnee leen ko yéen ñaar ngeen kii ko. moo la war a jël si. jëppal <laughs> moo jël si. moom commissaire bu jëppal moo la war a jël si yow. léegi ñu ni euh, Sall yónnee naa la ko. waaw donc euh, commissaire de commissaire de de police divisionnaire de classe exceptionnelle di Ndiaye CCAP seen kii nga xam ne que lii en fin de traitement conseil technique du cabinet mooy intéressé wu ñu. Euh, commissaire de divisionnaire Ndiaga Diop directeur du groupement mobile d'intervention du mooy Jémi yi conseiller conseil du cabinet directeur général mhm. donc Jémi yi jëlee commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Ibrahim Diop précédemment directeur de la sécurité publique est nommé conseiller technique au cabinet du directeur général de la police moom tam sécurité publique. tëb na sécurité publique jaari seen na ko ah. ah man xaw ma sax police man xaw ma ci dara le commissaire de police Abou Bakri Sadeh Ndiaye précédemment chef de la division des services à la direction de formation est nommé commandant bon yi il nag dafa am yoo ci intéressé ak yoo xam ne intéressé wax dëgg fa qui ngeen baal Mm-hmm. waaw léegi mbir bi ñun information la ñuy xool yeneen commissaire yi yu yu yu foor yeeg yooyu commissaire de police précédemment adjoint waaw saa yu saa yu da nga koy da nga koy grandir zoomé ko ñu xool mm. Abdoulaye Ka xawma lan commissaire de police précédemment chef de l'unité en charge du BRT xawma yi ndax yu intéressant ci suuf lañ koy dugal dañ koy nëbbul ci suuf ah waaw euh, léegi euh, donc maa ngi ci commissaire

précédemment chef commissaire Mohamed Gueye, précédemment chef de la division communication des relations publiques est nommé conseiller technique de le frigo commissaire era bon Florence Mendy xawma lan brigade nommé adjoint bon Ali commissaire Ali Kandé xam nga moo criminel cybercriminalité hmm. bañ jëlee ko fa précédemment chef de la division xool moom Le Euh, euh, Ali Kane commissaire spécial de la cybercriminalité conseiller technique moo tam frigo commissaire de police euh, ñañañaa xaw ma Pape Yoro Diallo xaw la lan lekk bon foofu intéressé wuñu commissaire de police ñañañaa Mohamed Lamine est précédemment au service du directeur de cabinet commissaire de police Mohamed Lamine Diop précédemment commissaire central de Guédiawaye et nommé chef de la brigade des mœurs, commissaire de chef de la et nommé chef de la division bof c'est pas tellement intéressant bonne lecture monsieur Bonne lecture là bonne lecture monsieur